asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba mu leen nuyoo di am contentement ak mbégte jano gi yéen chaque jour ngir indi leen di gën a fas si book xibaar yi ci noonu nag damay nuyu ñu ma feggool rek daal di ñëw jukki leen di gën a fas mbay nuyu naa la. jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay maa ngi nuyu bu baax a baax suñu xarit yëpp yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam. Assane nuyu naa la. ne Mbacke fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ak ñoom jeudi 8 avril 2021 Leewtoo point net la ñuy xëyandi la mu xëyee nag mooy ndam lu rëy la doomu Sénégal ba am di Reug Reug ci kaw ki xam te mooy Patrick Patrick euh, Reug Reug mais kawo Patrick en moins de 3 minutes mbay. Leewtoo point net moo ñu xamal loolu le loolu démb ci guddi la amoon euh, fële ca Singapour euh, Reug Reug loolu moo nekkoon ñetteelu kombaam mu am ci ñetti ndam Assane doon jàkkaarloo ak Patrick Simit di combat ba nga xamante ne bii combat bu neex la. wante tamit combat la ba nga xam ne gis nañ ci xeex. dëgg la Mbaye Babacar rëg-rëg ba Patrick Schmidt par KO en moins de 3 minutes noonu lañ ko euh, Leewtoo point net bindee démb combat bi nag mi ngi doon am démb ci ay à partir de zéro heure et mi foofu sa Singapour rëg-rëg dajeeg fa Patrick Schmidt bi nga xam ne Suisse la jóge daane ko par KO. ci seen premier round Reug Reug bii mooy troisième victoire am ci MMA ndax daane woon na Sofiane Boukichou Boukichou loolu mi ngi amoon le 14 décembre 2019 fii ci Dakar deuxième victoire am mu am ko contre Pierre Alain Galani le 22 janvier 2021 ci Singapour donc Reug Reug mi ngi gën a dem ci MMA bi victoire bi dina ko ubbil yeneen porte yoo xam ne ni ci kanam rek lay jëm. bi combat bi jeexee ban ko laajee na ko fan nga teg sa bët dafa ne jox leen man ñi nga xamante ne bii ñooy ponkal nekk ci MMA bi. dëgg la Mbaye Babacar loolu mooy ambition moom euh, lim euh, visé fi mu teg bëtam moom mooy ñi gën a mag ci MMA te yaakaar naa ne bu bàyyiwul li mu nekkee dina fa àgg incha allah. ndam li nag ñu ci ndokkeel bu baax a baax euh, sama xarit sama doomu ndey seex bu rëg-rëg di kenn ka nga xamante bii ku bëgg rëg-rëg la. kuy ànd ak Reug Reug guddi ak bëccëg Cheikh ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax di leen wax ne ndam li yeneen ndam yu kawe yàlla na ci topp yàlla leen jég félicitations à toi champion mu ngi noonu suñu làmb nag moom xëyee ci xëtam bu njëkk la mu xam xamle mooy contre du loo mission assignée a amaa Baldé sell bu ndaw ba ca Pikine corrigé ko duma ko daan ko Mbaye Babacar Ama Baldé nee na loolu la bëgg ci digganteem ak ki nga xamante ne bii moo di Modou xarañ Lo di roi des arènes waa pikin dañu ko sas dañu ko yónni ba pare yàkkamte ko nee na li mu bëgg mooy jubbante kii di Modou Lo duma ko daan ko ci anam bu gaaw dëgg la Mbaye Babacar ama journal suñu làmb moo xëy bindu loolu nee na Ama Baldé démb mi ngi woon di daje ak fans clubam yi ban fa demee nag li ko fans yi wax que mu ba objectif bi ñu ko assigné contre Modou Lo moom mooy mu duma ko daane ko euh, ba pare corriger ko ñetti yooyu daal journal suñu làmb wax ne fans Ama Baldé loolu lañ ko yebee pour que bu jàkkaarloog Modou Lo mu def ko. ngir jëlee li nga xam te ne mooy roi bi jëlee ko Parcelles yóbbu ko Pikine. Mm-hmm. ma ngi noonu ginnaaw ba seen face to face bi yàqoon na keroog fee ca seen TV ku mel ni Abdou Bakhoum kii di Birame Ngingue ak Vieux Ndiaye dum ni ko laay àdduna ci Mbaye Babacar. jërëjëf Ndeye Mbacke ñoom ñoom ñeent ku ci nekk andi na sa xalaat ci li nga xamante ne bii. mooy face à face bi waroon a am foofu ca Sen TV te mujjee ci ay coow ak ay lacrymogène ya nga xam ne yaakaar naa yéen ña fa demoon bi ngeen ñëwee da ngeen a soj ay ñanda xit yu bees tax ngeen àndaale man loolu ma jaaxal ba ngeen jógee fale ca face à ba ñoom ñeent ñooñu ku ci ku ci nekk nag joxe na ci sa xalaat Assane ci face à bu yàqu boobu dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw face à face bu yàqu boobu journal suñu làmb dafa jël micro am jox ko kàddu Abdou baaxum Vieux Ndiaye Birame Ñing ak Lig Lig Nicolas ku nekk nag andi na ci euh, xalaatam Abdou Bakhoum mi nga xam ne moom mooy manager Ama Baldé lim xam nee na moom Modou Lo moom moo créé lépp moom moo tax euh, face à face boobu capote ndax moom moo bañoon a dugg ci biir salle bi kii di Vieux Ndiaye moom moom mooy chargé euh, de com bu écurie Falaye ba moom li ko naqari moom mooy étiquette bi ñu jox waa waa waa Pikine nee na étiquette bi ñu wax waa Pikine ay bandi la loolu mi ngi koy ñaawlu te bëgg na mu dañ kii di biram ñi nga nee ne moom euh, dara bettu leen ndax ñoom bi ñu dem ci face à face bi pare pré woon nan euh, pour am fa pour jàkkonte fa ak lépp nee na nag prochainement du nangu ñuy def ci benn endroit boo xam ne ni amul sécurité ñu fay def face à face. léegi léegi Nicolay waaw kii di Ligue Nicolay moom nee na euh, face à face bi. Euh, du woon sax face à waaye lancement événement bi la woon waaye nag euh, prochainement li mu gën a nu mu gën a gaawee dinañ jàpp beneen date pour def vrai face à face entre Modou Lo ak Ama Baldé. incha allah mu def ko foo xam te ne fu yaatoo yaatu la parce que ñaari bëri ku leen xam mbay xam ne dañoo bëri mbooloo. dañoo am gannaaw. même bu ñu wootewul sax fan si ñu ñoo ñëw seen bopp. kon mm. nañu def ko foo xam te ne dina am sécurité bu doy doy doy. te dana yaatu ngir suñu kaaraange ñun ak ña fay ñëw. ma mm-hmm. nga noonu nag du jaajëkko lañ jëm mooy Sène ak Lac de Guiers ñoom doyoon nañ ci sëkk sëkk yi li ñu yëgle mooy bëggatu ñoo gis combat bu mel ni combat Eumeu Sène ak Lac de Guiers ba nga xamante ne bi dañ fay nekk di layam layame rek puusuñu paasuñu saful xorom saful suukar président amateurs yi di Doudou Diagne Diecko nee na ñoom daal ñoom amateurs yi doyal nañ ci combat bu mel noonu Assane. dëgg la Mbaye Babacar euh, Doudou Diagne Diecko moom mooy présider association boobu ñu ngi tuddee Amalda. moom nag bi ñu ko joxee kàddu li mu wax mooy on ne veut plus de Eumeu Sène moom daal nee na combat Lac de Eumeu Sène dooleel ci sëkk bëgguñu ko gisati ñoom amateurs yi ndax li nu gis keroog dimanche naxari na leen torop ba combat bi daal bu ko benn promoteur jéem a tëggati. ma nga doon nag le puncheur de Waalo malgré ses victoires sur Boy Niang et ki nga xam te ne mooy Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 reste toujours le mal hérité de l'arène Lac de mu daanee Boy Niang daan Eumeu Sène barki démb moom day poser question nee na lan moo tax ba léegi sénégalais yi wala amateurs yi di ko contester lan moo tax boobu ba léegi sénégalais yi ak amateurs yi bëgguñu ko. dañoo jàpp ne ba léegi waaw mal aimé mal aimé waaw. dëgg la. mal, euh, malgré ses victoires sur Boy Niang et Eumeu Sène Lac 2 toujours le mal aimé de noonu la ko journal suñu la làmb waxee comme ni nga ko waxee Babacar mm. daf ne euh, Lac de Guiers malgré les victoires yi mu am ci booy Niang ak euh, Eumeu Sène amateurs yi daal dañuy toujours dañuy continuer di ko sànni xeer waaye nag loolu Ipo Ngari euh, jox nañ jox nañ ko ci kàddu pour mu répondre ci Ipo ngaari euh, lim yaakaar ne loolu moo waral li ñu mel mooy que ne nee na Lac 2 dafa défensif de trop loolu tax daal supporters yi di ko ŋàññ fu mu toll euh, yox nañ ci également kaddu ñoxobaay ñoxobaay tamit la même chose la wax nee ne euh, amateurs yi euh, dañuy sànni xeer Lac de Lac de parce que Lac de Guiers dafa offensiful dara day téye boppam di fa nekk di xaar te loolu amateurs yi bëgguñu ko amateurs yi li ñu bëgg mooy arbitre bu soufflé rek yow nga def li ngay def mm-hmm. combat bi daal di jeex ñu mën a ñu mën a ñibbi waaye 4 avril bi wute na ak 4 avril yi fi jàll mu ngi noonu nag gala à Fatick du 8 au dis avril incha allah un enveloppe une enveloppe de de 2 millions cent en jeu mbay. Euh, incha allah foofu lay am ca Fatick incha allah bu ci yàlla àndee juróom-ñetti fan jàpp fukki fan ci weeru avril di gala de lutte ba nga xamante ne bii ñaari millions ak téeméeri junne ak juróom-benn fukk la ñu fa teg asal. dëgg la Mbaye Babacar gala à Fatick du 8 au 10 avril une enveloppe de 2 millions 800 mille en jeu. noonu la ko journal suñu làmb waxee nee na comité de gestion de l'arène Biram Tending Ndiaye ñoom ñooy organiser gala boobu gala mi ngi am ci Fatick stade bu naan Ngor site Ndour ñi ko war a animé moom mooy Massène Sène ak Agnès ñaar ñi daal ñoo fa war a toj incha allah. ma nga nag ñàkk jariñoo ak nga xamante ne mooy kéwél duel succulent scellé par Khadim Samb Mbaye. Khadim Samb communicateur traditionnel bu mag boobu la moo taxawal boobule combat Assane di combat ba nga xamante ne bii nag. combat jànq la ñaari espoir lan ñaari yaakaari làmb lan muy ñàq jëriñu ak kéwél di combat bu neex ba nga xamante ne bii amateurs yi ñu ngi koy xaar. dëgg la Mbaye Babacar ñax jariñu kéwél ficelé par Khadim jàmb euh, Khadim Samb oh. euh, muy combat comme ni nga ko waxee combat jànq combat bu neex ñaari mbër ñi nag jógee ci ay situation yu différentes ndax euh, kéwél mi nga xam ne ni moom la ñax jariñu war a dajeek dernier combat am dafa defoon niil la ci jógee woon niil la ci jëlee woon moom ak euh, Sunjata combat boobu mi ngi amee woon le 9 février 2020 ñax jariñu moom xam ngeen ko dernier combat moom ak Alioune Seye 2 dafa euh, dañ ko reporté woon ndax xeex yu ci amoon loolu mi ngi xewoon le 9 février 2020 ñoom ñaar ñu boole leen mu war a nekk nag combat boo xam ne combat de clarification la war a nekk. ñax jariñu fan yii ñu gis ko mu muy dugg ci mbappat yi di di di di wane boppam. oui gis nañ ko Gambie mu dem fa nekk def nekk ci mbappat yi di góor góorlu Euh, loolu rek entraînement la dina permettre mu préparer bu baax contre kéwal bi nga xam ne moom la war a dajal. Mhm. maa ngi noonu nag journal record lañ jëm touché par Gris Bordeaux Modou Lo ak Lac de Guiers numéro 2 pourquoi Eumeu Sène est facilement atteint loolu nag samp laaj nga xam ne mooy journal suñu la euh, non journal record moo bind loolu Assane. Mhm. nee lan moo tax Gris Bordeaux. Modou ak Lac 2 heure bu ñu jàkkaarloo ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Eumeu Sène rek pour ñu toucher ko pour ñu dóor ko jot ko day yomb. oui euh, Mbaye Babacar touché par Gris Modou Lo et Lac 2. pourquoi ëmm est facilement atteint noonu la ko journal record bindee ab nduur nag benn jàngat la def ci lak euh, Eumeu Sène mi nga xam ne ni à chaque fois dañ koy touché adversaire mi dañ koy yóbbu ardo léegi nag jox na ci kàddu kii di Abdou Badji mi nga xam ne ni moom moo nekkoon ancien DTN bu CNG moom li mu gis nee ne Eumeu Sène dafa am problème mu garde problème garde la am euh, nee na day wàcce loxoom buy bëree te loolu day permettre adversaire am yi atteindre ko facilement jox na ci également euh, kàddu El Hadji kii moom trois fois champion du monde de boxe la uh-huh. kii lu mu gis nee na euh, Eumeu Sène dafa am ñaari défaut majeur nee na tànk yi dañu gàtt waaye loxo yi également dañu gàtt te loolu ay défaut la yoo xam ne nii souvent sa adversaire day yomb ci ñoom pour ñu atteindre la ma nga noonu nag Assane Wala kontaan naa la bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar yi mbay looy tàggatoo. Ndeye Mbacke bala ñoo tàggatoo rek Assane dañuy fàttali suñu mbokku amateurs yi ak ñi nga xamante ne bii ñooy internet yi incha allah le 13 Leewtoo production ma nga jëm fële ca Joal ma nga jëm fële ca Ndangaan Samb. le 12 ci waaw le 12 ah. le douze fële ca Ndangaan Samb di euh, journée ba nga xamante ne bii euh, lutte traditionnelle la ñu ciy invité ñëpp nday ndey faatu Adama Jali démb bi ñu dajee làmb ja nee na ma. ndàngaan sama feef la maa ko moom te suñ fa dajee da ngeen xam ne lépp dëgg la. un million mooy un million cinq cent mooy mise bi ñu war fi xaar def euh, gala bu rëy rëy rëy gala bu mag comme bi ñu defoon euh, Joal. Mhm. Euh, di ci invité amateur de lutte yëpp di leen xaar Ndangane Samb le 12 avril incha allah. mooy noonu nag Leewtoo production moo fa moo fa woote. yaakaar naa ne boobu mooy tëj saison bi sax ndax buñ ci jógee rek ca koor lañ jëm. bu buñ ci jógee rek dañuy daal di dugg ca ko buñ jógee ci làmba ja rek. day dem dem mun mu am na nu dem demee dañuy jógee ci làmba rek dem xaddi. <laughs> incha allah <laughs> mooy seen jox dig daje incha allah.